pour man euh, li ma dégg étudiant bi mu wax ko bu dee noonu la demee war nañ taxaw ñu xool mais li ñu war a xool dafa bëri mm-hmm. li ñu war a xool dafa bëri parce que euh, buñ gisee xale yi di di am yenn comportement yi dama naan man nan laa mën a jàngalee xale neuf mois mm-hmm. jour bi muy dem muy sànni ak a xotti cest à nan laa mën a nekk pendant neuf mois muy dem tàccuwuma mais muy yàq war naa man man déjà interroger lan laa def ci xale bi ak ban organisation moo am ci école yi ba xale yi bu ñuy dem dañuy war a remercier ñi leen di jàngal mais pas di leen indil ay ay jafe-jafe je pense que euh, li am solo bu am solo monsieur Mbow wax na ko sànq njàng du du pédagogie rek mm. ni ñu war a jàngal xale yi dëggantaan ci suñu école yi moom mooy nan la ñuy rester ay sénégalais de yor ay valeurs mm. yoo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom moo tax tout le temps je pense que suñu suñu école yi il faut que euh, Yérim wax na fi ay affaires yu am solo ay révélation yu am solo mm-hmm. mais pour man yooyu yëpp am na solo mais li ëpp solo moom mooy ñun dañu am ay akki yoo xam ne dëkk yooyu yëpp amuñu ko dañu am ay acquis yoo xam ne je pense que buñ ko buñ ko buñ ko buñ ci sukkandikoo parce que il faut pas ñu jël école française ñu jël ko yóbbu ko fële jël li nga xam ne moom moo nga xam ne suñu suñu suñu culture la ak façon njàngale bi ñuy njàngale ñu ñu ñu discerner leen ba nga xam ne doo mën a boole ñaar yooyu pour man dañu war a sukkandiku ci li nga xam ne moom la ñu am comme acquis moom mooy fii religion am na fi am na fi doole ah droit de naissance am na fi doole mag am na fi doole yaay am na fi doole pap te des acquis yoo xam ne ñun ñoo ko moom suñu bopp mais lan la ñuy xoolee ba loolu yëpp dem te loolu moom pour man mooy soubassement moo mën a téye xale yi ba nga xam ne xam nañ ni ñun fii la ñu bokk donc je pense que il faut quand même ñu dellu ci li nga xam ne moom la fi euh, professeur wax docteur waxoon na ko sànq li fi nga xam ne mag yi foofu loolu lañ fi bàyyi woon ñu jéem a wu ci loolu pour jéem ko dugal ci suñu école yi pour que suñu doom yi ñu reste quand ay sénégalais xam nga dafa bëri euh, ay mën nga am sa doom te du la nuru ci dara te man pour man loolu loolu erreur erreur bu mag la il faut que ñuy jàng que suñu doom yi am lu ñuy nuru si ñun il faut pas que ñu euh, ñu foog ni suñu doom yi lu ñu gën a tubaabee lu ñu gën a jàng mhm. ah ñu gën a nekk ay nit yoo xam ne bu ñu génnee si biti dañ leen war a respecté doom day nuru baayam les humanités sénégalaises loolu dafa am solo parce que pour man loolu moom loolu loolu base boo xam ne la fépp fu mu mënti dem fu baayam nekkul ak yaayam nekkul sax dina ma xalaat ni sama papa ak sama yaay de defuñu lii ci man et je pense que nous Euh, effet colonisation yàgguñu ci jamono trop mais dafa yii yëpp ay ay yuy yuy doog a ñëw la parce que quand suñu dëkk bi bi ñu nekkee bu ñu indépendant léegi ça fait quoi 60 ans ñi ngi commencé di fay mbir mi cest di dire que on est kii kan lañu doon ba pare kan la doon lan la ñu bëgg suñu doom yi nekk c'est ça le plus important c'est-à-dire que su suñu amee suñu doom yi ñu dem di jàng école bu ñu delloo si kër gi communication bi ni ñuy communiquer ñoom sax c'est différent bokkatuñu dara internet ñëw fi donc am na beneen nit leneen lu ñëw nekk entre diggante xale yi ak ñun ki ñu nekk donc je pense que le sénégalais doit rester un sénégalais quel que soit yow réussite sociale wala réussite financière wala lu mu munti nekk il faut mu am ay acquis yoo xam ne Cheikh Yérim sekk mii ah intellectuel de haut niveau nekk journaliste bu mag bu ne kii mais base am moom xam na ko te da koy damay gis que ni daf koy convoqué lu bëri ci ci éloquence am sax non dëgg la. da da ciy feeñ parce que am na foo jaar yoo xam nga ni euh, école école privée jàngoo fa dañ daan ñëw ci sa ay waajur mais xam nga fi nga jóge yow fi nga jóge en tant que ci say maam fi ñu jóge xam nga li mu def ci yow ak li mu deful ci yow donc ñun ñëpp ah dem donc je pense que aujourd'hui quand tu parles tu regardes ku mel ni Charles fay daf ko fi wax chaque fois boo waxee muy revendiquer ay ñaay cokkeer ay fi mu jaar ak loolooy baasam foo mun munti nekk loolu nga àndal man fu ma munti dem loolu laa àndal parce que bu fu ma munti woon tukki ci àddina tam loolu laa àndal malal taalaa mi idem bu duggee géejawaay nga xam ne malal taalaa géejawaay la dëkk mais il faut que ñu teg école bi teg ko na le kon ñu ñu waxtaan si loolu ba pare parce que ki ngay defar sa kër bi ko màgg ba muy da muy dem jàngi bu nekk bu amee bu xale bi amee 6 mois commencé wax commencé temp temp ñu commencé leen teg ay jikko yoo xam ne di suñu jikko qu'on se la vérité. expliqué wàññi ko. wàññi ko <laughs> non macha allah wàññi ko kay ku nekk ak sa kii ku nekk ak sa interprétation <laughs> mais bon. parce que wàññi <laughs> ko. non non non waa ji non wa non mooy bi bàyyi ku nekk gars yi dégg ku ne ñu ngi ko koy tëpp nag nee la ñuy ne pour Samba pour Demba mais ne pense pas je pense rek macha allah ñu ciy sant yàlla mm-hmm. mais pour revenir à ce que je ah, disais non non non dama jox exemple non non pas pour mais xam naa du yàgg du ñàkk du dem ci def ay recherche génn benn affaire ne la ci yërëm wàññi ah. donc euh, mais mais je voulais il faut que ñu dellu si si si loolu avant ñuy wax école bi jamono dox na dox boo xam ne si on ne fait pas attention du ñu am doom yi ñu bëgg parce que doom yi ñu bëgg dañu war a nekk dañu war a inspiré aussi ñun lu ñu nekk te ñun dañoo am benn dañ tuba français yi ñoo ñu colonisé am lu ñu def ci suñu suñu papa yeeg suñu maam yi te ñu si gën a bëri. affaire boobu moo commencé di fayeeku léegi il faut qu'on redevienne on peut quand même des sénégalais jël xale yi seet nañ leen leen di yaree même biir école yi ñu am quand même une école bien sénégalaise aujourd'hui ñi nga xam ne ay étudiants lañ di casse le grand problème bi ñu war a casse dëggantaan hmm. mais c'est le problème de niveau parce que boo nee école wax université lan moo njëkk a tax du pour jàng mais no mais mais loolu duñ ko tax wax ko ñan mais ñi daan nekk prof boo seetee professeurs yu mag yi daan jàngale université ñu si bëri ñi faatu nañu ñi retraité nañu est-ce que relève boobu am na mais amul je suis désolé da ngay waxtaan ni mu ne damay jàngale université nga naan mais kii kan lay jàngal loolu le plus problème non, y a mooy amul relève soo demee si élémentaire bi mais ñan ñooy jàngale ay élèves maîtres yi ñuy wax ak ay affaires yi pour benn critère la ñuy jël nit ñëw ne la jàngal ay xale mais pour jàngal ay xale li mu laaj dafa bëri li mu laaj moo bëri ñiy formé bu ñu leen formé wul nan lañu ñu mën a formé ay nit. ci chômage moom lay wax ni c'est-à-dire que pour wala pour régler ay benn ay problème ay problèmes sociaux ay affaires yooyu ñii dañuy kii amuñu fu ñu leen dugal nañ leen jël jàng jox leen ñu jàngale. mais jàngale kat mais danga nga koy formé. Mm. boo formé wul kiy jàngale mais ki muy jàngal doo xam dara. te loolu day répercuté wu ci personnalité sax xale yi wax ngeen ko ñun ñëpp bi ñu nekkee bi ñu nekkee xale genre ñi ñu daan jàngal nu ñu meloon ak ñun mais doo imaginer sax yenn affaire yi on a perdu ça te loolu je pense que bu ñu ko jël jéem ko régler ci université bi ci élémentaire c'est un problème de société bu sénégalaise boo xam ne pour man ci avenir yi ngay wax prédiction yi ngay def ay ay Chine ay États-Unis yooyu yëpp c'est bien beau mais li ñu am ñun je te jure que bu ñu amee ay ay ay nit yu imaginer nekk nii loolu lañu war a nekk moo war a nekk base bi. pour mm-hmm. tey ji nii luy mu munti yëngu si réew mi ñan ñoo koy rek lu yëng réew mi bu yëngoo dëggantaan. xalaat si xali si ñoo koy. mais mais c'est-à-dire que non lu yëngu ci réew mi bu ñu nee nii. gars yi ne mais loolu ay acquis la. loolu ay acquis la ñooñu dañu war a seet ci ci ci <coughs> ñooñu lan la ñu mën a jël foofu dugal ko ci école bi ça n'a rien de religieux mais c'est des acquis yoo xam ne <coughs> surtout Sénégal dañ ko am boo waxee Sénégal ñu ne fii jàmm rek moo fi am mag ñu baax ñu fi tëdd wax discours bu nice mais ci biir discours boobu est-ce que jël nañu ay éléments yoo xam ne moom la ñu war a moom la ñu tirer de foofu pour ñu am une société bien sénégalaise boo xam ne dafa am benn état d'esprit ak benn mentalité boo xam ne c'est sénégalais loolu moo am solo te loolu après mooy mooy régler problème yi yépp université nga ne mais université bu nekkee li mu wax nii yëpp am na mais dañu war a taxaw seet li gën a ci réew mi ci la bokk mooy ban façon université la am et puis pourquoi ñu mën a jël cent vingt mille wala cent trente mille indi leen Dakar alors que on xaw ma ñaata région ci biir réew mi lan moo tax nit ki bu amee bac day bëgg a daw dem université qu'est-ce qu'on depuis boobu ba léegi te loolu pas des problèmes yu étudiants yi si pour man moom laa yor dafa am ay débat yoo xam ne état moom moo war a njëkk a xam ni lii moom mooy seen chantier bi gën a rëy te comme tu le dis comme ndaw ñi ñoo fi gën a bëri ku deful ndaw ñi sa chantier mais da ngay am problème. vraiment li ñu évoqué bari na pour.